Rewmi 24 TV

rek daal sa yaram dafay daw moom na fa depuis mois moom moomu di Cheikhou Omar Diagne ma nga ca prison ba ñu téye moo def nag message bi daal di euh, addu ci askanu Sénégal di leen ñaan rek ngir yàlla ñu bañ a fàtte euh, ndaw ñi nga xam ne rek jàpp nañ leen ca prison ba bu yàgg ba léegi kon daal mi ngoog moom moomu di Cheikh Omar yàgg fa lool di ko ñaanal liberté waaye di ko ñaanal bépp prisonnier boo xam ne rek jamono yi dañu laa arrêté foofa ca kaso ba jaa ngeen jëf mbokk